Donc, euh, Mansour euh, compte Zik FM la waye TV ko un an euh, trois mois être à la presse bi fofu koy jaaxalé fa koy donc mënuñu ci jot itam lu ëpp at amul Ben procédure judiciaire bo def nañu ko ci ñu dañu bon nguur gi ak groupe des médias. Mm-hmm. ci la quoi. <laughs> Lola Fok, foog cangat an yàlla bu dul waa fisc di wa di wa euh, senera bu dul waa di ñeneen donc où est le problème lan la quoi qu'est-ce qui se passe quoi lan la lan la concrètement nous war a poser question def ko ben ndëpp ñun lu ci suñu responsable du responsable te nguur gi bu fekkee face ñu def leen face fu mu yam neex mais nag mënuñu parce que ñun donc nekkuñu Sénégal hein? groupe des médias donc nekkul Sénégal nak parlons de la vérité. Pourquoi chaque année, nous sommes victimes de l'affaire fisc, de l'affaire nous sommes l'affaire fisc, de l'affaire fisc, de l'affaire antenne Qu'est-ce qui se passe Nous il faut mériter une question sur ce qu'il fait des médias comme qu'il fait une gourgue. Parce que nous, nous sommes employés dans l'année. Qu'il fait des médias, nous acharnement. acharnements. acharnement, d'accord. Mais nous avons des informations pour nous parce que dañu war a def face ci combat boo xam ñun ñoo koy parce que du ñu nangu kenn tëj suñu entreprise mais war nañoo xam ci nan la ñuy parce que chaque année xeex bi ñuy entamé. pour lan ñun donc nekkuñu fi yeneen groupe de presse ñu ngi fi yeneen am ay journal si mag donc war nañu xam lan moo sabab xex bi ñu fini ko et ñu tourner page nguur gi des médias. des médias Sénéra des médias impôts des médias taxes des médias tëj compte c'est-à-dire dafa doy war nañu xam ne góom bi fan la nek ñu gratter ko def ci def ci aspirine mu waw benn yoon parce que nak trop c'est trop quand même euh buñu nekk ci situation bi situation bi euh, tay ñu tëj suba duñu ñu tëj tey ñu dagg antenne nekk ci ay bras de fer aussi itam commune sa xulo yab la ça suffit dafa tay ñun xeex bi ak nguur gi parce que ñoom mënuñu ñoo tax changer mukk suñu ligne éditoriale buñu doon and ci walu politique wala ñuy xalamal Macky Sall ñu and bu ni ñuy fay kan mo osé gëm sa bop wo mansu jop demander lako quoi que soit ci mouvement gëm sa bop doto ko defati kon buñuy am fuñuy fété ci walu politique buñ do fété ñu fété fofu kon ñun kenn mënuñoo tey ligne éditoriale bi ñu jël amul ma sàmb ak ma demba duñu toroxal gor duñu ko xass deug do nga lañu wax fété ak peuple bi mais nak benn benn lante yi non war nañu am ñun ñu fiy liggéey ay explication yu leer nak parce que dafa war a doy mënuñu chaque année tëj nañu compte ba tëj nañu fi dag nañu signal bi xulo nañu fi manifestation nañu non commune sa xulo yab la c'est-à-dire ñun

Euh, lolé tax méga coalition boublé Daldi di soubou ci un plan d'action katou collectivité territoriale yi daañu itam ci grève grève wu fan lay doon dalé ko fan ak bu décembre euh, ñi yëngatu ci walu wér yaram muy grève fan lay doon euh, ko kon décembre ñu xayma seen juróom-benneelu plan d'action directoire bu méga coalition bi ëmb intersyndical lu liggéeykatu collectivité territoriale yi ak ànd gësëm fas yéene jublu ci seen juróom-ñaareelu plan d'action boo xam ne agent wu collectivité territoriale yi grève wu ñetti fan lañ ci amal àllarba fukki fan ak ñeent alxamis fukki fan ak juróom ak ajjuma fukki fan ak juróom benn ci weer wi ñu ne ci lu soxol collectivité territoriale yi mbirum régime indemnitaire yi nga xam ne daa am yokkuteb 5 pour cent ba tey appliqué wuñu ko ci ñu nekk ci gox goxaan yi Sidiya ak ñi mu àndal di ñaawlu itam ne yokk Côté bi ñu nemmeeku ci payoor yi jaarale ko ci hausse des salaires généralisés ci secteur public bi collectivité territoriale, yi gisaguñu ko méga coalition bi ne lu muy sàkku du lenn lu ñu respecter li loi bi wax jaarale ko ci article 19 bi ne mbooleem yokkute boo xam ci administration bi daa war a feeñ ci ci collectivité territoriale, yi ci seen wàll waa ànd gësëm ñoom fas yéene xàppati ñaari fan ngir dem grève alxamis fukki fan ak juróom ak ajuma fukki fan ak benn ci ñu ñu respecter urgence ak service minimum kanamam li ñuy xaar mooy ay jëf yu bàyyeeko ci gouvernement bi ngir jëmmal déggoo yi am seen diggante fukki fan ci weeru mai bi weesu te soxal yokkute salaire yi yokk indemnité de risque yi waaye itam harmoniser payoor bi ñeel indemnité de logement bi ñeel mbooleem agent de santé ak action sociale waaye itam agent wu collectivité territoriale yi ngook euh, méga coalition bi Léopold li ñu leen diggoon 10 euh, mai 2022 amul benn boo xamante ne matérialisé nañu ko ba tax ñuy sóobuwaat ci beneen euh, yeneen i grève moom lay wax tout le temps nekk ñi nekk ci kaw féete ci kaw seen baat dafa war a tombe chaque fois ak muy doon loo xam ne baat ak jëf ñooy dem mhm. bu baat xase ba dem jëf war naa mun a ñëw tegoo mais gis nga ñi amoon dañ leen jox ay dañ leen jox espoir waaye espoir bi yàqeeku na parce que li doon xalaat ñu ne lii dinañ leen ko defal ba léegi ñu leen ko ba jar ñu wàcc it ci tali bi manifester heureusement que patriotique ba nga ci hôpital yi officier fa malades ñu mais en réalité il faut que le secteur de la santé ñu def ci genre introspection bu mag pour de bon dañuy régler solution yi wala duñ ko régler mais continuer ni ça va pas aller parce que tamit sénégalais yi ñi ngi fébar ñi ngi dem ci hôpitaux yi danaka mais ñom am nañu xelub bàyyi ay nit yu fa nek yo xamné ku yex ci dinañ la mëna fajj mhm. mais aussi état bi il faut que mu am la sacralité de de la voix voix bi ngay génnee di dig nit ki il faut que nga jéem waccok li nga xam mom ngay digi mais do jël ay magum jëm di leen di di leen di bërëng fu nga ne leen lii dina am lii dina am suñu ñëwee dara du am. Mm. ñu wàcc ci tali bi dox ba sonn finalement lan lay mujj dañuy yaakaar ne dañ leen bugg a am maanaam suñu demee ba sonn. ñu naan nañu bàyyi mënatuñu foofu lañ leen bëgg a am à l'usure mm-hmm. ay ay ay ay paramètres yu ñuy teg la pour jéem a nax nit ñi ba finalement ñu génn ci guuta googu euh, justement Mansour conséquence bi askan yi ñoom ñoo koy dund nguur gi di leen di seetaan ba ñu egg ci septième plan d'action te septième plan d'action bi li ci grave mooy

kayit yiy tax bu sa doom juddoo nga mën ko déclarer te ñoom dañu bëri ci syndicat bi te xam nañu nguur yi dañuy jouer ak ñoom moo tax dama tiit ci seen appellation bi méga méga comment méga coalition c'est-à-dire même appellation dafa mel ni ñoom dañu noppi pour damier pour jouer ak nguur gi mais jeu boobu c'est vrai que ñoo ci nekk victime mais nguur gi dinañu gis lu metti ci seen kanam te bu boobaa day wane échec gi nga xam ne nguur gi échec nekk ci wàllu doxalin parce que ñoom amuñu interlocuteur

Gouvernement dina am ko démarche pour interpeller ko responsables. ko li ay et pourtant demb ci ndajam conseil des ministres président demande na ñu def évaluation ci importance 10 ans acte 3 de la décentralisation. parce que ci lañu créer créé collectivité conseil départemental. Mmh. éliminer conseil régional. ci la éliminer conseil euh, communauté rurale. Mmh. def lepp ay communes. cest à système bees bob est-ce que am na rendement am dette mais tey boo laajoon ministre bi bilan du moom moo lay def bilan parce que kenn gisagul ben démarche wala ben jéego bo bo ko sax ni sax xamuñu ko d'ailleurs alors ñi di wajé grève mo wax wo waxtan ak ñom ñu trouver solution mais dama foog ni ñi jité sen yoon nekul ci souffrance au Sénégalais yi malheureusement